AGT News. li xewoon atum 2011 jàpp 2012 bu amatee ci Sénégal dinañ dund recul démocratique boo xam ni gàcce la nar a doon ci ñi nga xam ne ñëpp xeexoon nañ daal di am ndam ci ki nga xam ni moo di Abdoulaye Wade gàcce googu xanaa kay ci kenn képp la dul dem. muy le président Macky Sall ak ay ñoñam nga xam ne ñoom bokkoon nañ ci ñu doon xeex lu ni mel tey jii ñu bëgg indiwaat mbirum troisième mandat am nañ yaakaar que ni président Macky Sall xanaa dugg ci loolu. dafa am ay mbir yoo xam ni moo xew ci Sénégal président Macky Sall dafa bokkoon ci acteurs yi nga xam ni ñoo dox ci wàllum troisième mandat xeex la président Abdoulaye Wade ngir mu bañ koo daal di def. bien vrai que maître Abdoulaye Wade posé woon na candidature am waaye président Macky Sall bokkoon na ci ni nga xam ni yoroon nañ seen ay mer gàddu dem fa nga xam ni di place de la nation ak buntu assemblée nationale ngi daal di xeex le président Abdoulaye Wade à ce que mu bañ a def troisième candidature mu bañ a def troisième mandat. lu ni mel sénégalais yëpp àndandoo ci xeex ci xeex bu méttee métti am ci sax ñu ci jot ñàkk seen kenn ba tey président Macky Sall nekk le nouveau chef de l' état son excellence le président de la république. ay nag am leneen lu doy waar lu ci xew mooy que ne président Macky Sall bi mu yéegee ci nguurub Sénégal dafa jël li nga xam ni moo di constitution bi ne da koy sécuriser mu ne. atum 2012 lañ ca dund bëggul ñu dundaat ko mukk atum 2012 la ca jot a xew bëggul mu amati ci Sénégal ba tax moom président Macky Sall mu ne dafay jublu ci wàllum sécuriser constitution bu Sénégal ci lu jëm ci wàllum limitation de mandat waaye dugal ci itam beneen frase boo xam ne moo koy gën a dëggal moo koy gën a ñoŋal waaye itam frase boo xam ne képp ku ko dégg rek xam ne mbir yi fii la mën a yem kenn mënu koo dépasser muy nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs au Sénégal moom président Macky Sall taxaw wax ko waxati ko taxaw ci plateau yu bëree bëri yoo xam ne moom ci boppam moo ko wax devant tous les Sénégalais nëbbatuwul laaxatuwul waxu ko kenn en privé moo ko wax ñëpp di dégg mu ne man président Macky Sall man ci sama benn mandat 2019 lay daal di jeex 2019 googu bu dee Sénégalais yi am nañ confiance ci man renouveler sama mandat bu boobaa damay am ñaar jeexal takk dem sama yoon keneen dal di ñëw jël bopp nguur gi. lii du samay kàddu kàddu yu président Macky Sall la woon moom mi ka daan wax saa su ne ci télévision yi fu nekk mu taxaw wax fa dëggal ko waaye keneen ñëw gën a renforcer les propos du président Macky Sall mu di Ismaïla Madior Fall. nekkoon jamono ji ñuy tëgg constitution bi le ministre de la justice nekkaat ka tey actuellement ci nguurab Macky Sall Ismaïla Madior Fall ñëpp gis nañ vidéo bi nga xam ni ngi di waxaat répété plusieurs fois ne nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ici au Sénégal loolu nag mu répété ko trois fois ngir journaliste yi gën a mën a comprendre li muy wax pare nag jeexalee ab discours am il n'y a pas place à interprétation maanaam amul lu ñu fiy waxtaanee amul lu ñu fiy lam-laamee amul lu ñu fiy discuter lépp a leer soxlawul sax débat soxlawul interprétation. waaye nag comme ni ko suñu naataangoo xalaat TV di waxee kii la ma jot Fall dafa trahir ñu bëree bëri waaye ñi mu gën a trahir mooy ses étudiants ñi mu gën a trahir mooy ñi mu bokkaloon fac droit ñi mu gën a trahir. mooy la constitution du Sénégal ak bépp xeetu texte boo xam ni dafa làmboo ak wàllum droit moom Ismaïla Fall mu jàngoon ko maîtriser ko te jàngale ko ba tey jii mu am ci ay étudiants am ya mu jàngaloon ñu nekk ay cadre ñi nekk ay juristes yu mag ñi nekk leneen ak leneen loo xam ni tey ñi ngi amal njëriñ Sénégal bay amal njëriñ àdduna wërngal képp moom Ismaïla major Fall moomu noonu doon joxe xam-xam fépp ci Sénégal tey moom moo taxaw weddiwaat kàddu yi nga xam ni waxoon na ko ci lu jëm ci wàllum droit ndax daf ne woon il n'y a pas d'interprétation à par rapport ak kàddu yi mu yëkkati woon ci kanamu journaliste yi waaye tey jii kaddu yooyu soppeeku na ndax dimanche premier janvier 2023 bi passé rek am na ci ab émission boo xam ni moom a Madior Fall yëkkati na ci ay kàddu te lam ca doon wax nekkul lenn lu dul président Macky Sall kenn waru koo tere mu nekk candidat musuñ koo tere Senghor suñ koo tere Abdou Diouf musuñu koo tere Abdoulaye Wade ba tey jii ñu bëgg koo tere président Macky Sall pour mu poser ab candidature am noppi teg ci ne lu jëm ci wàllum droit toujours il y a à interprétation texte yi mën nañ ko interpréter interpréter waat ko alors que moom waxoon na fële ci lu jëm ci wàllum constitution bi ak nul ne peut exercer bi que ne foofu il n'y a pas place à interprétation mu nekk ñaari kàddu yu waroo ñaari kàddu yoo xam ni li mu ci wax tey ute na bu baax a baax ak lam ca waxoon démb gisaat que moom Ismaïla Madior Fall ca Tëngéej mu dajalewaat ña nga xam ni ñoom la ñuy woowee ña bokk ca Benno Bokk Yaakaar ak ca APR di xëccu ci li nga xam ni moom mooy présentation président Macky Sall à l'élection présidentielle de 2024 moom mu taxaw di ci wax ak fermeté taxaw di ci wax di dëggal boppam taxaw di ci wax en encourageant le président Macky Sall mais itam di woo ñi nga xam ne ñoo di population sénégalaise à que ñu jënd carte yi ngir mën koo convaincre à ce mu dem ci li nga xam ni moom moo di ca la élection lii nag ñi tax ñu ci defaa ba jàngat c'est parce que dafa am ci benn fànn ci li ñuy waxtaanee boo xam ni dañ cee bëgg accentuer wu baax a baax mooy ci lu jëm ci wàllum kàddu ci lu jëm ci wàllum respecter sa kàddu itam ci lu jëm ci wàllum jàmm ak salaam bu Sénégal tey jii Ismaïla Madior Fall même bu fekkonte ni droit boobu muy wax mën nañ koo interpréter tey jii mën na koo interpréter moom waru ci woon sax wax tey bu fekkente ne droit boobule moom kese la ñuy topp moom Ismaïla Madior Fall président Macky Sall ak seen ay ñooñ ñi nga xam ne dina am si ñenn ñoo xam ne ñoom dinañ leen lim léegi du yàgg dara. waruñu cee sukkandiku ndax dafa am ay kaddu yoo xam ni moom moo njiitu woon kaddu yooyu ñoom. xanaa bañ koy yëkkati liiruñu woon droit xanaa bañuy yëkkati kàddu yooyu xamuñu woon ne droit mën nañ koo interpréter. waaye lépp nag dañ nga ciy comprendre que ni jamono jiñ koy wax ñoom amuñu woon soif de pouvoir am na itam ay enjeux yoo xam ni nekkuloon en place ñëpp xam nañ ne ci atum 2023 bii ci jeexital gi ci li ñu commencé lu jëm suñu wàllum exploitation pétrole ñëpp xam nañ ne nguurub Sénégal daa nar a gën a neex ñëpp xam nañ ne réew mi bu dee lépp teg nañ ko ci yoon dafa nar a gën a neex kon bu fekkente ne yow mi ko doon jiite da nar a dem bàyyi ko fii alors que da ngay dem rek affaire bi daal di génn bu boobaa boo amul ngor tuuti di nga ne lii kat bàyyil ma xëccoo ko lii ma buuxante nga daal di fekkee ñi nga xam ne ñoo koy daal di gérer lu ni mel nag ñëpp xam nañ ne fii ci Sénégal bu fekkente ne ci loolu lañ ne fas yéene cee continuer du ñu mës a am ngor du ñu mës a am itam loo xam ne dañ koy jombale suñu bopp. résident Macky Sall quelle que soit la situation ndaa waroon taxaw ci kanamu sénégalais yi ne leen man kat comme te maa waxoon waxi du ma def troisième candidature du ma def troisième mandat quel que soit mënta wax interpréter le droit man président Macky Sall sama ngor ak sama kàddu bu génn ba noppi mayetuma may toog fii ci Sénégal nan dama fiy xëccoo leen damay dem ci jàmm ak salaam waaye itam dinaa leen organiser des élections libres et transparentes lii lañ doon xaar ci président Macky Sall mu addu ci waaye ba tey jii mi ngi ci nii wii nii non boo xam ni moo tenir dëkk bi ci benn kawo boo xam ni kenn xamul lu mu doon ku ci nekk di yàkk sa morom lu mel ni xeme buñ sukkandikoo ci pouvoir ak opposition lii nag président Macky Sall mën nañu cee génne waaye daf ci am ñeneen itam ñoo xam ni fan yi yëpp ñu ngi leen di gis ci plateau télévisé yi ñoom ñëpp ñuy xambal le président Macky Sall à ce que mu bokk ci élection présidentielle waatum 2024 ci ñooñu noonu mën nañ cee lim Aliou saw ci ñooñu noonu mën nañ cee lim Abdoulaye Seydou saw ci ñooñu noonu mën nañ cee lim ñoom Mame Mbaye Niang ñoom Farba Ngom Moussa Bocar Thiam Yankhoba Diattara ak ay leaderu APR yu bëree bëri yoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi war ci plateau télévisé yi di ci daal di addu mu nekk nag mbir moo xam ne ñoom tey jii bu fekkonte ne dañuy seet seen i kaddu démb seeni kàddu kaddu tey waruñoo nangu muy changé waruñoo nangu muy yi ani Alioune Sow moom mi fi taxawoon fan yii ñu weesu rek yàq lu mel ni xeme le président Macky Sall Aliou Sow moom mi taxawoon jamono yi ñu weesu rek di dal ci kaw président Macky Sall naan kaan waroo fee def troisième mandat waroo fee wax waxi troisième mandat ani Aliou Sow mi doon dal ci président Macky Sall nan koon teg xel nga yow mii kat temps bi noo def rek ba daal di gën a continuer di jiite Sénégal moom mooy sa yitte waaye xamal ni troisième mandat doo ko fi def tey moom moo retourné wu waat di daal di défendre le président Macky Sall gannaaw bañ ko falee ab ministre ñu ci bëri mel ni daal ab poste ak nguur daf leen a daal di tiital mel ni ñoom ëllëg waruñoo mën a liggéey ba daal di yegg fa ñuy yegg waaye nag loolu daf lay wan tout simplement que ne ñoom ñëpp ils ne sont pas présidentiables amuñ benn dayoo ci réew mi amul benn taxawaay bi ñu am sax ci seen ay gox kenn nawloo wu leen kenn respecté wu leen kenn faale wu leen ndax danga koy xool rek ci Ismaïla Madior Fall moom mi doon interprété lu jëm ci wàllum droit par rapport ak constitution bu Sénégal ak président Macky Sall candidature am bi ñu naan dina ko déposé di ko déposé moom Ismaïla Madior Fall amul benn dayoo ci tëngéej ga nga xam ni fala la daal di dëkk amu fa base amu fa benn électorat bu am doole élection locale yi ak élection palum député yi daf koo daal di wane dafa carrément les limites de Ismaïla Madior Fall à Rufisque wane les limites des autres qu'on a eu à citer ici par rapport ak diwaan ya ñu dëkk par rapport ak ñoom la ñuy peser waaye tey boo gisee ñu ci bëri nekk ay ministre ñu ci bëri am benn fonction yi ñu teg leen fu kawe c'est parce que tout simplement ñoom ñëpp ay xeexkat lañ ci télévision yi mën nañoo dem te représenter ji APR ak Benno Bokk Yaakaar di leen waxal di leen jëfal waaye itam di leen défendre bu baax a baax waaye nag lépp dafa war a tegu ci éthique ak déontologie ci suñu am réew duñu tàyyi di ko wax duñ tàyyi di ci addu ndax loolu kese moo mën a tax suñu am réew mën a yegg fa nga xam ni fa lañ ko bëgg daal di yeggalee lii xew ci réew mi nag lu doy waar la waaye ñi ngi ñaan mais président Macky Sall ak i ñoñam ngor fulak fayda ak li nga xam ni saa su ne itam ñu wax ko muy jombale sa bopp ñu daal di koy def surtout ci lu jëm ci wàllum troisième mandat soxla wuñu dëkk bi nekk ci kawoo soxla wuñu dëkk bi tàkk li ñu soxla mooy nekk ci jàmm ak salaam suñu réew mi di Sénégal baatum 2024 ñu tànn président bi nga xam ne moo ñu doy ngir toog ci bopp nguuru Sénégal bu ko defee mu yërëm ñu bu ko defee lépp lu ñu yootu mën na am bés dinañ ci daal di jot te itam satisfaction bi nga xam ni depuis 2012 ba tey ñu ngi koy wër dinañ ci daal di yegg waaye itam président Macky Sall dem ci jàmm ak salaam sortir par la grande porte te bañ a def li ñëpp di tiit muy poser sa candidature ci atum 2024 ndax bés bu ko defee dina bett ñu bëri waaye itam am nañ yaakaar que ne résultat yu catastrophique la ci mën a jëlee AGT News